la pour moi, aussi il faut nous convoquer euh, responsabilité euh, c'est important parce que aussi euh, kër gu ne rek am kilifa mm-hmm. te aussi euh, mënuñu la toog di la tëggal pourtant pour que nga comprendre le message que premier responsable c'est le chef de famille cœur, mm-hmm. On a une dafay neex borom këram je pense que aussi eh, il faut que ñuy ñuy nous, jël Sénégalais yi di leen mettre devant leur responsabilité parce que amuñu affaire ak ay ay mala ay nit la amal affaire yu amul benn nit ci réew mi boo pendant trois mois quatre mois sonaluñ la sa nopp a ak tellement d'informations sur coronavirus loolu moom dëgg la message bi moom qu'est-ce ku ne de ko maintenant je pense que euh, bu dee dara daf lay indil gàcce

c'est très très très très important il faut que nit aussi ñu ñu convoquer euh, lolu quoi que nit ñi jël seen responsabilité bopp pour que euh, ñu baña nek fi aussi jël affaire bi rek wekk ko ci communication oui mais aussi communication bu da nga nek di di di dialogue ak ben peut-être du dégg man nga wax fi ba suba te du la dégg te am ben moment bu mu bu mu fu ñuy toll nit ñi aussi il faut ñu ñu jankonté lool pourquoi may may may rebondir aussi si si li malal di wax Euh, c'est-à-dire que àddina bi yëpp xam na ni par exemple suñu kër gi mbir mi dugg na fi ñëpp xam nañ ko jar du information mhm. ñëpp xam na mais dama lay jox ay anecdote rek mhm. euh, tudduma Samba Ndiaye tudduma Demba Ndiaye maa ngi tudd Bouba Ndour donc ñi ngay xam ñëpp. ndax mënoo Samba Diop. ah Samba Ndiaye mënoo Samba Diop ah, wala Faye <laughs> ah donc. dama dama koy jël ci sama ci sama kii rek. Mhm. ci sama ci sama kii euh, ci sama bopp. mooy euh, depuis coow bi di di ki parce que dinaa mënoo mënoo ma nettali sama gént ma xam ne kii dañ ko wax man dama koy dund. Mhm. c'est-à-dire que nit dina la woo ah woo boo xam ne mi ngi peut-être mi ngi lay stigmatiser sax te xamu ko. Mhm. xam nga li ma la bëgg donc pour man pour te dire rek te pourtant nit boobu nit bu la naw la. xam nga loolu dafa am solo koo xam ne daf la naw. koo xam ne daf la respecté koo xam ne daf la bëgg. Ah. mais aussi en même temps aussi si si ay comprendre que ni xam moment commencé la donc pour nature humaine mm. mais li li a société yi que ñun ñu ne une mm. ah. mm. disposition de mu mënti mais semaine que en fait en réalité. Euh, bu la dalé ko munti nek euh, ki la gëna aussi dina dina dina jël distance soit mu défé ko ci ci suuf wala mu défé ko psychologiquement mais en tout cas les gens commencent à à. alors ñi ngi wax. Euh,